jaajëf sama gars yi jaajëf sama gars yi man la Mister Shake depuis les États-Unis d'Amérique gars yi nañu déglu Ousmane Tounkara li mu wax ci président Sonko ak Macky Sall après ñu doog a continuer analyse bi. Ousmane Sonko la ñu gëm Ousmane Sonko mu sell ko lim ñu digal loolu képp la def. dégg ak loolu lu mu mën a doon nag. dégg Ousmane Sonko bu jógoon mu ne ñu fal leen Ndella Madior. dégg nga su jógoon. mu ne ñu fal leen seen yaay Aïda Mbodj. Aïda Mbodj Aïda mu ne fal Déthié Fall. Déthié Abbas fal leen Macky diw fal leen képp ku Ousmane Sonko joxoñ kooku mooy falu yow Macky Sall nii Ousmane Sonko su ne woon ñu bàyyi la nga am troisième mandat da ngay am troisième mandat. dégg nga. pour muy leer. dégg nga. Ousmane Sonko su génnoon léegi ne eh les gens arrêtez. xam nga wax yi du waxu nit. Ismaïla Madior Ndella Madior Aïda Mbodj Gathie Fall neen déglu Ousmane Sonko aveuglement aveuglement nañu déglu Pastef plan B voilà gars yi la njëkk wax loolu la njëkk wax ci loolu la njëkk wax ci euh, Ousmane mais nañu déglu lu aussi li mu wax ci Macky Sall parce que moom ba léegi xamul ne affaire bi Macky Sall du nit koo xam ne dañuy toog di ko baab déglu leen li muy wax ci Macky Sall déglu yàlla de bu paree pour toroxal la dégg nga te pare na li la dal nii rek moo lay dal foo romb ci Sénégal ñu la yuuxu sàcce waa dégg continuer guux say lex di forcer Macky cucc bu damm mosuma koo gis ci àdduna waaye. nañ nga mas a rek sa affaire bi damm xam nga affaire bi. dégg nga li mu wax sidit la damm waaye Sall. cucc bu damm ci yow rek lay amee. dégg nga dellul ginnaaw. dellul ginnaaw balaa muy trop tard balaa ñu lay jay rek ngay. dégg nga nee Sall dellul ginnaaw. yaakaar na ne Macky Sall dina dellu ginnaaw. dellul ginnaaw te def ndànk. dellul ginnaaw yow xam nga jël nañu kaani xeeñ tëj sa biir gémmiñ. dégg nga voilà gars bon bon dama leen bëggoon def ci vidéo xanaa dégg nañu li Ousmane Tounkara wax première partie bi nee na Ousmane Sonko lu mu wax rek. ñoom dañ ciy ànd plan B bu Ousmane Sonko waxee nañu votel Ndella Madior ñun dañuy votel Ndella Madior bu Ousmane ko waxee nañu votel Aïda Mbodj ñun dañuy votel Aïda Mbodj bu Ousmane ko waxee nañu votel Gathie Fall nga xam ne yow askan bi dañoo trahir Ousmane Sonko ñun dañuy dem votel euh, Gathie Fall bu soo ko waxee Macky Sall na am troisième mandat Macky Sall day am troisième mandat wax yooyu waxu daanu saret la gis nga Ousmane Sonko mooy suñu leader waaye bu juumee est-ce que ñun dañu war a ànd ci li mu juum parce que Macky Sall def troisième mandat ñun moom la ñu xeex pendant neuf ans kon Ousmane Sonko bu demee ba ci biir mu ne Macky Sall def troisième mandat loolu est-ce ñun dañ ko ci war a topp waruñu ko ci topp lii moo tax Pastef du dem parce que mentalité la poto yéen da ngeen jël Ousmane Sonko ngeen def ko yàlla ngeen def ko yonent Ousmane Sonko fu mu nekk ñun ñoo ko war a jàppale mu dafa nekk ci ay loxo. xamatul li def di jéem dialogué parce que Branco waxoon nañ Ousmane Sonko day jéem dialogué ñu ngi nii di am ay candidats ay cinq candidats ñu naan plan B stratégie du stratégie dara fii benn stratégie moo fi am chaque jour moo wax leen ko mooy ñu génn xeex Assane Mesere wax na solution TV ak soin bu ak Sa Ndiogou Assane Mesere li mu wax dëgg la ñoom dañu waroon génn ñu xeex ñu ne Ousmane Sonko dafa war a bokk ñu fexe ba Ousmane Sonko du nekk ci kaso. waaye Ousmane Sonko nekk ci kaso ah Serigne Mountakha di di di wax ci moom ah dégg ngeen lii Madiambal Diagne wax ci sëñ Abdou Bass Abdou Khader moom moom Madiambal Diagne ci boppam moo dem ci sëñ Bass Abdou Khader 2019 ci élection yi mu ne ko Ousmane Sonko ak Pastef dañoo bëgg dindi mouridisme Bass ne ko ah lii woon nañ ciy jóg waaw kon mouridisme bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo xeex Ousmane ko tey mën nañu mën nañu wax. ba tey mi ngi ni ci kasso bi ñu amel ko bor ñu fatte ko tunkara nak mi ngi sarxu Macky Sall nang ko delu ginaaw delu ginaaw Macky Sall du delu ginaaw parce que daf ñoo jekku dafa tas Pastef dafa tecc suñu suñu suñu euh, njit li ñu wax tapet tapet bu la ko porté du la bayyi Macky Sall du ñu bayyi parce que bu ñu bàyyee dañuy dal ci kawam xam nga bon plan B bi may ko Diouf gis na ni ñang koy xass nan ko da nga daw dem Canada xawma ma Ngagne Demba Touré mu ngi Mali Pastef bëggatuñu xeex man loolu tax man Mister cheikh man mané je démissionne du Pastef qui a démissionné boo leen gisee defatuma ay live mais nak du téré maa ngi ci live yi di commenter képp kuy def propagande bu bon boo xam ne day yàq que comme Ousmane Sonko li mu def nii loolu xam nga ne du waxu nit Ousmane Sonko bu dee def ñoo jiite ba ñu war a am victoire mu dem ba ci biir bëggatul xeex est-ce que ñun dañu war a toog ne duñu xeex bala may dee ñu naan non non boo xeexee Macky Sall day dàq élection yi kon léegi Macky Sall day xam loolu ne ñun dootuñu xeex mu jàpp ñu duñu tëj di ñu rey parce que bu dee bu ñu xeexee day dàq élection yi danaan ah kon bàyyil ma continuer di jàpp nit ñi di tëj bàyyil ma continuer di rey bàyyil ma continuer di tere di tere parrainage Ousmane Sonko du bokk fii ba février Macky Sall daf ñuy cokkaas parce que daan ah ñii de duñu xeex Ousmane Sonko bu bokkul léegi février nu ñuy def kenn du xeex parce que boo xeexee day day dàq élection yi waaye élection yoo xam ne yow doo ci bokk buñ ko dàqee lan la lay wàññi ñun dañu war a fexe ne Ousmane Sonko bu bokkul élection du am li ngeen di bañ di ngeen ko def di ngeen ko def février parce que bu dee da ngeen bañ xeex léegi parce que nee nga boo leen xeexee dañuy dàq élection yi waaw février bu jotee bokk leen ci élection yi di ngeen xeex wala doo leen xeex loolu nag laay ragal ne doo leen xeex bu boobaa nag Macky Sall gagné na Ousmane Sonko il faut ñu wax ko dëgg même moom bu bëggutul def gàtt sa gàtt ñun ñoo war a continuer ñu def suñu gat sa gat waaye du ne rek Ousmane Sonko lu mu wax rek dañ ci war a ànd léegi Ousmane Sonko bu ne février man bokkatuma garaawul naa def plan B te plan B yi comme ni ko Assane Messere waxee Macky Sall du bàyyi kenn jàll gii Marius Sagna du jàll waxoon naa leen ko parce que dañ ko tas ba pare Guy Marius du bàyyi du jàll Abass Fall du jàll El Malick du jàll koo leen mënti indi du jàll te même bu ñu jàlloon Macky Sall day sàcc élection yi ndax élection yoo xam ne Antoine Diome moo ko organisé Amadou Diouf mooy joxe résultat yi préfet yeeg sous préfet yeeg Macky Sall la ñuy liggéey fan ngeen di jaar ba gañ li ngeen bañ a dégg mooy Pastef dafa mel ne dafa bëgg a saraxe Sénégal Pastef dafa mel ne dafa jibbul yéen loolu ngeen di bañ a dégg man nag monsieur Cheikh du ma bàyyi ba février may am déception dama leen di teel a avertir boo leen bëggee projet Pastef continue Ousmane Sonko continue bu leen déglu Ousmane Sonko ci bañ a xeex xeex leen ñu libéré ko xeex leen mu bokk par man loolu mooy sama message gars yi laaj leen partagé leen fi mu nekk dootuma def live tant que ma ne waa Pastef changé nañu stratégie waaye nag du terrain maa ngi continuer def samay samay vidéo merci ba beneen